Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale internationale. injiili Mbakke yaa gën ku la sopp dal di gën ku la noonu dootul gën lii wër na yàlla. bu ko defee soxna Kumba ci woon li nga xamante ne si moom mooy présidente daayira bi nga xamante ne si moom seen jiiri noo ànd liggéey bii. muy Baye Fallou sëñ Jili nga xamante ne si bis bi bu xesee ñëw bu xesee passé bu subaa mu salaatu daal commencé cee dox soxna ko moom moom la di jox kàddu gi cuun bu ko defee mu daal di ñëw sànni kàddu yi nga xamante si moom la war a sànni ci bis bi waaye soxna Kumba sëñ Jili sant na la de sëñ Jili ñaanal na la de sëñ Jili rëccu woon seen ànd de. xam naa ne rëccu wu leen ko waaye moom it rëccu wu ko. naan kon soxna Kumba. jërëjëf ci woon. bu ko defee rek nga daal di sànni kàddu. ñu daal di dugg nag si biir. jërëjëf waaye di sant nag sunu xarit di sant ki nga xam ne moo la defar moo la dimbali waaye nag dañuy jiital cant gi di ziare sunu xalifa muy Seydina Mohamed Mbacke di la ziare Mbacke ah di la jox sa wàccuwaay ah di xam ne yow yaay sunu lépp yaay sunu kilifa yaay sunu xalifa ñu ngi lay ziar bu baax mbàkk sant bu baax. di sant sunu nga xam ne nag moom ñun doon sëñ Tuubaa mu ñu maanaam def euh, euh, wàcc sëñ jiili nii boobu ñun ñii ñoo taxoon ñun yaakaar naa sunu gàtt ndax ñun soxla yi ah, li nga xam ne sëñ jiili moom la def ci dëkk bii bu fi ñëwutoon ndax nag tout ça bu defaroo soxla defaroo yaakaar naa àdduna ba dina jëf te sëñ jiili de moom. mission de dara yoru ko mbàkke lu dul soxna yi ak tuut tànk yi ndax gis nañu lii lii fi sox soxna yi def ak lii fi tuut tànk yi def nañ ko te kenn du moom lu dul moom may mbàkke ndax ba mu ñëwee ci dëkk bi li ñu njëkk a wax mooy dañuy da ngeen di taxalu ab daayira ñu taxawal ab daayira daayira ba di daaray tuut tànk kese kon yaakaar naa mbàkke yow koo moom àdduna yëkkati wu la woon bu la koo moom àdduna yëkkati woon da ngay dem ca ña am soldo waaye doo dajale tuut tànk yëkkati sunu la ñu naan daayira pour tànk yi booba mag ñi bëriwul ñu ba mu yàgg mu woote waat ne leen daayira bi fexe leen dugal daara ndax nag bala ngaa jaamu yàlla da ngay jaam ñu ne ah bàtte nu ñuy def mu ne taxawalal daara ji daal di jël daara ja yóbbu ko ca daara ja fee kër soxna ko mbëjul foofee la daara ja daara ja nag di daara joo xam ne daara ji ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa la ndax daara joo xam ne da ngay jàng ba ngoon jot la ca muy muy muy muy muy muy xasida ya muy téere ya amu ci lenn loo xam ne xam nga fa muy jóge te weeru dee bañ na la ah nangam na amu ci ñi eh, maanaam daara ji ñi fi doom ñëpp buñ doon fukk su may boo ma ne juróom-ñeent yëpp seen i doomam yi kon li may wax ko waaw kenn musul na ci weeru dee nangam war na la fa déedéet te daara ji tey ñii fi xasida yi ñun ñëpp fa la ñu jaar waaw ñun ñëpp bo boo boobee ñu dëkkee ñu ngi sant yàlla di sant sa njiir ndax tey benn soxna tegatul gerefaat benn soxna solatul col gu gàtt benn soxna solatul col goo xam ne nii ah boo dajee kilifa di nga rus xol la ñuy teg ci seen bopp jàng xasida pour tàngee xasida yi la ñuy woyantoo loole nag sañ biri Mbàkke nii rek lañ koy ñaanal Mbàkke yaay sante Sëriñ Jili Mbàkke bandi xewalam yaa ngi ku ci naan du yëg mar wi lay maral daa xew fii ñun sëriñ Jili Mbàkke lañ dëkkee sëriñ Jili Mbàkke du sëriñu jàmbaar ku mu doon sa sëriñ doon nga jàmbaar li la des nga bay sa waar may nga sëriñ Jili Mbàkke lañ dëkkee. Sëriñ Afiya moo feeñal ca ñett ci réew mi bu ngeen maase woon ni bale tubay ju ndaw wuute na tubay ju mag sëñ ji li mbàkke yaa di ki jox sant naa la sant naa la sant naa la tëkkaleel sëriñ Jili Mbàkke gi jundar gi si su ko maan yaa ma saf sëriñ Jili Mbàkke yaa ma saf yaay ki tax ma saf sant war na ma doon taalube sant war na ma kuy taalube mu jubal yëngatu sant war na ma doon taalube dër amulee Mbàkke kon li de sant la yow yaay sëriñ dey man si xanta moom mooy samaan sëriñ Jili Mbàkke sëriñ Afiya moom ak i kafe ba pare taati sirbi takk naa sama jàng yeey sëñ ji nag sëñ bi kenn du ni guleet yàgg di rey gëleem dina des nga bay sa war jur sëñ ji li Mbàkke yañ jëkkee tey gone bu fi yëkkati xasida la nga fi yëkkati ci ñoom ñoo ñee tey ñoom ñoo ko def sa bopp te nag dara ñoru leen loolu sëriñ Tuubaa ñoo ñii nag may ñaan bi dagaan bi sëñ Moustapha ak ñi fi nekkal yàlla tey dimbalee ñu dimbale leen ndax nag am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci daara ji yor seen i diplôme yor seen i bac te wax dëgg yàlla ah, ah amaguñu xëy may ñaan sëñ Moustapha ma ci ci sama njaboot boobu nga xam ne ñu ngi ci daara ji bi liggéeyal Serigne Touba nekkal fa sëñ Jili Mbacke te sëñ Touba rek ñoom leen te ñuy déglu rek lu dul ndigalu sëñ Jili sëñ Jili bu doon sa ngoom tey lépp loo xam ne lu baax la dana ko yëkkati teg ko ci seen loxo ndax lu mu ci man mi ngi ci lu ci man mu ngi ci lépp loo xam ne rek nag mën nañ ko suba ba ngoon buñ ko sant dañuy sant yàlla di sant sëriñ Jili Mbacke ndax lépp moom dañuy santaat bu baax di sant sunu waaye sunu nijaay maam Thierno mi nga xam ne moom moom daara mooy borom daara ji yaatal ñu ndax ñun dañoo bëri ay jafe-jafe dañuy ñëw ci daara ji lu ñu neex la ñuy def waaye maam Thierno lépp lu ñu bëgg mën nga jël ak soxnaam kon ñu ngi sant bu baax di sant sunu yaay sunu mag di soxna Ndeye Diop ndax moom lépp yo moom. te xam nga ni meer bu ko neexoon yebal ki nga xam si moo yor ndax kooku fan teew mais teew ndax moo yor lépp waaye fonk bis bi ak fonk la moo tax mu ànd ak moom ci délégation bi mu ñëw ànd naa soxna Fatou Sow nekk secrétaire sëñ ji sëñ bi souvent bu yoroon secrétaire bi rek doy na sëkk waaye mu ànd ak cabinet waaye daal di ànd ak kon fonk naa waaye fonk la bis bi muy ñëw mi ngi ànd ak soxna Laasana Saw lii sa Saw di responsable politique bu mag te léegi lan ma ko wax xam naa ni am xar amagu fa déglu nit amagu fa yeetee dem ma ma dem amagu te waaw te xam naa ni ñettali moom même maire laa koy tuddee doom bi moom maire laa koy tuddee loolu moom na ko ñëpp xam waaw kon bu ko defee yi nga xam ne ñu fi dëkk ci koñ bi te nekk fi nuyu daayira yi fi daje yépp nuyu waa daara ji yépp nuyu jàngkat yi nga xam ne ñoo fi doon nekk tagg jàng xadis euh, xasida yi day tagg Seydina Muhammad sallallahu waaye man xam naa ñu leen jariñ bi nga xam ne yaa ngi koy jariñ fii donc maire boo gis ko xam ku sañoon na ñi fa nekk ñooy gën ñëpp kon soo amee ku fa nekk ku jàpp ci gox bi ci nit ñi fa dëkk surtout ci ndaw ñi di jubbanti di jàngal ngeen xam-xam ak loolu defaloo ko kenn meer bi ko defal loolu man su ko mën a jaar dama ciy jàpp ba kenn ñu wax ko fii te bañ ko wax dama ciy jàpp xam naa rek damay sàkku ñaan waaye di ñaanaale xëy na teewal ñu dajewaat di defar baax yi li nga xam ne ñu ngi koy dox pour yow pour daara samp ko fii nga bokk ñu ne daara si biir Mbàkke la moomal ko sa bopp loolu sotti ñu ngi ciy dox bu baax yaakaar naa ne li ci waroon def ñun kayit rek def naa ko yaakaar naa dossier bi sous-préfet la dese yaakaar naa dana sotteeku dana sotteeku bu neexee yàlla bërëb bi nga jot ko wax bi tamit danañ ci jàpp bu baax a baax maa ngi koy day sàmm wala ñu ko jotee bu neexee yàlla maa ngi jàpp bu baax a baax ci construction bi mu ngi taxaw ndax dañoo ko minas nga nekk loolu lañ bëgg bu ñu jógee fii yéen bëgg na toog wax nañ ko xam sa maqaam place toog loolu yéene la te ñu ngi ciy dox te yoo xam ne si dara toll kon donc ñu ñaanale rek bés bi loolu sotti bu déwénee ba fi dajewee ñu ne suñu daara ji moom la ñu nga gëree wala ñu demee noonu beneen bi si des na xëy na day gën a sàkku ñaan rek ci commune bi ndax commune Kër Massar moom dafa rëy dafa bëri nit mais damay sant Serigne Djily mi nga xam ne dafa ñëw fii soppi soppi montagne man de daa sant bu baax a baax li sax may sant mooy taxaw ba ma taxaw Serigne Djily jox ko sama kóllëre ak moom te xam naa sax naa def si ñun di sant it ñi ma booleeg moom mënu ñàkk nag. yaa ko cuun xam moo tax ma xam ko naa ko bu baax baax su neexoon du ko xam parce que ku xam yaa ko ma cuun démb xam ko tey nga xam sa njëriñ defal na ko kon dañ ci sant dañ ko bu baax a baax mais mais du ma gën a góor ah. maire bi may kër barke Serigne Touba Saliou laa kër Serigne Touba man de du ma ci xaar kenn lépp lu wàllu suuf laa ko fa yóbbu ah. suuf li suuf laa xam ne suuf sama oto dina ko indi parce que kër Serigne kër lañ te ñun amuñu lan amuñu dara ñun sëñ Tuubaa rek moo ñor man de lu ma am sëñ Tuubaa ma gënal loo ma ëppale jëlal loo ma gën a bëgg jëlal soo ma gën bëgg sëñ Tuubaa ma ñee la barke Serigne Saliou laa wax kër googu su taxawee lépp di wàllu suuf ba ba ñu pare maa koy yóbbu daf barke Serigne Saliou maa ngi tuub nag jégalu ñëpp bal maa Tuubaa jaajëf borom nga sëñ Ablaat نفعوا خيري أولا لصوا أكو بوكو تنك يا مالك الملك يا من جل عن خوال ارحم جميع الورى يا هادي الردى نيوغ الدعاء نيوغ سنتوا نيوغ دا أموي فولا نجي لفكرة مولنا والله ينصرني والقد خطبوني وإلى في البر والبحر صارت إلى الدار كو خمني fuñ la fekk nga jëriñ nit ñi te doo leen kenn war nañu fekk la ko. inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabili llahi fa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله sigil bàkk maam soxna faat jaxate yow la bur yàlla jagleel sëriñ Saliou maqaamam Suleymaan ak nguuram gi mu amoon moom la bur yàlla jagleel sëriñ Saliou maqaamaati Muusa wa kalaamulaay moom la buur yàlla jagleel Sëriñ Saaliw maqaamaati Isa ibnu Maryama moom la buur yàlla jagleel Sëriñ Saaliw xasaayit gi Seex Bàmba naan fi nii ca lay turam mooy Sëriñ Saaliw cat ak làmmiñ bët bu aay ak rawaan ku leen bëgg tëddeel si kër Serigne Saliou. ndax moom lii jëm di ko woote moom Serigne Djily ku jubóo ci bokkam ku rafetal la ci digganteem ay bokkam Serigne Djily Serigne bi li ko war ci kër Serigne Abdou Aziz ak kër Serigne Afe nee na def lépp. sëñ Mouhamed nee na loolu de moom mat na ci seede nee na bañ xamee ak tey jii loolu ñuy wax ak ndaw yi musu koo xam ci moom lu baax ak fulla ak jom rek sëñ Mouhamed nee na loolu rek musa xam ci seen bi ku maa doomu aadama ku yëg doomu aadama ku amal njariñ nit ñi la te yàlla moo wax na wa ammaa maa yanfa'u naasa fa yanqusu fil ardi saa boo saxee di jariñ nit ñi yàlla dana la fi yàggal waaye moom ku amal njariñ nit ñi la kon nag nee na sëriñ bi nee na ku yàlla taw feexal nga jox ko sa bopp muy sa jëwriñ am nga sens ndax jëwriñ bi mat sëkk xam ne du la nax du la te dina la war a rek moom sëñ Mohamed Mbacke mii nee na moo ne sëñ Jili lu ko waay defal danañ la ko ku ma defal lu baax danañ la ko fay waaye leneen moom na sëñ Tuubaa waxoon maam Cheikh Anta rek dañu woon maam Cheikh Anta nañ moytu ci yow nañ ma moytu ci yow ndax kuy géer bi bëreeg yow lu mu gaaw gaaw dana ma fa te sëñ Tuubaa nag biraa suman baara sani biraa suman yu baarisan muntaqiman baari saman kon nag ñi nga xam ne yàlla tawfeexal na leen ñu ànd ak bi bu yóbboo seen xel dal bu baax na ñu ngi ñaan nag jataay bi yàlla na bu nekk suñu mujj gi jotaay. ashabta qawman li siwana kulla man laysa yakunu mu'minan ya zal zaman. ashabta qawman li siwana kulla man laysa yakunu musliman ya zal zaman. ashabta qawman li siwana kulla man laysa yakunu muhsinan ya zal zaman. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne Touba cey Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muriid mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina mbokk yi ñu bokkal Seyxina Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñoo ngi leen di ziar di leen bal ak te di leen balu ak di jiite ci ziar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom guddal fan Serigne Cheikh Jëmu Fall xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muriid dina yàlla suñu borom guddal fan sëriñ Jili Mbàkke yal na suñu borom guddal fanam sëriñ Jili Mbàkke yal na suñu borom guddal fanam sëriñ Jili Mbàkke yal suñu borom guddal fanam mu mel ni dañu fee fekk suñuy kilifa sëriñ Mouhamad Mbàkke ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ndax bu ñu toogee ci jotaay bi ñu ne kilifa ak sëriñ Jili mooy sëriñ Mouhamad Mbàkke te xam nañ ni Serigne Touba lépp lu mu am mi ngi ko amee ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba nee na waman yasir li si wal maaqi wasilatina fa sayruhu inda ahli sayri kal xatani nee na ku dem ci beneen bërëb lu dul bërëb bu ñuy liggéeyee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee ci ñu xam valeur dox yow demoo da ngaa paralysé ndokk nag yonente bi yàlla def ko deux cent un noom tuddee ko ahmadu xaamidu maax yi mox yi muzakir misbah taaha yaasin muzammil abdusalaam boo demee àjjana abdul karim la tudd ana soppee sëriñ abdul karim borom bakari ma la boo demee sawara ñu naan ko abdul jabbar malayka yi naan ko abdul aziz yonent yi naan ko Abdul Wahab picc yi naan ko Abdul Haqqar Njaay al yi naan ko Abdul Razzaq Tawraatu Muusaa Mawdo Mawdo Injiil Iisaa taaba taaba Zabuuru Daawda paasa paasa waaye bàyyi bas ak baara maame dana seex jël xalimaam naan ko Samsul sumu si yaay def di def rasul boobu si yaay président yonent yi xayrul anisiya gën ci nit ñi leen awliyaay ñeer yi waaye ki may bàkk mooy Sëriñ Jili Mbàkke damay wax ca wala xol Hizbul Ilaahi tey jii ma sant Seyxinaa Jiili mooy sëriñ bi gën ci jamono waat naa ni mooy sëriñ Jiili alhamdulillahi tey jii ma sant Seyxinaa Jiili mooy sëriñ bi ci jamono waat naa ni mooy sëriñ Jiili yaa doon na sa di ab jant doon nga sa maam ja maam Seex Anta billahi sëriñ Jiili rangoo nga médaille Seex yaa doon na sa maam ja sëriñ billahi foo dem bàyyi fay aafiya sëriñ Jiili Mbàkke yaa doon sa baay bi sëriñ Abdul Aziz billahi war naa ci rabbul aziz am la doy na am-am xam la doy na xam-xam yaa di géeje xam-xam réew mi déglu leen tuuti yow mi mar ba doo ndox mu neex mii ñuy sotti teen bi mooy sëriñ Jiili kon ridan wa rahmatan wa barakatuh misla misla déggal sëñ Bamba na lam yabdu mislu Moustapha Mouhamadi ku mel ni njool ma borom Màkka ak Madina du lam yabdu def na ñu ñëwaatal fii dinaa bokkal nag lam yabdu mislu Moustapha Mouhamadu ana ñu sopp Serigne Jili Mbàkke sëñ Bamba na lam yabdu mislu Moustapha Mouhamadi ku mel ni njool Màkka borom Màkka ak Madina ñëw si dara ñu ne ko foo ko teg mi sirran wa jaxran ci lu nëbb ak lu feeñ fil baraya ci mindeeti asamadu ki ñëpp jublu di Seydina Muhammad kenn du mel ni moom madalan wal kubra maha ki nga xam ni moo ñu tegtal lislam dàqal ñu kéefar mooy jor màkka borom màkka ak madina moo ñu ko tàllalal de wa bi nasiatin likulli ko indil mooy Seydina Muhammad yaqudu bi yëngal yaqulu bi zahiri wal batini man dalay womma ci lu nëbb ak lu feeñ moom njool màkk borom màkk nga bàyyi Serigne Saliou nee na ku soog ñu ne ko noo koy toppee mi ni lillahi ñeel yàlla fii kulli zaman ci jamono ju ne. xidmatu. yëg na ni liggéeyal Moustapha. xidmatu. liggéeyal Taha. xidmatu. liggéeyal Yacine. xidmatu. liggéeyal Abdou Salam. xidmatu. liggéeyal Abdou Mouhaymin. xaneel ulama asabat. booy liggéeyal joon Makka borom Makka ak Madina ayib boo am day dem. wali sahamatan wa saban. istiqaama ngay am taxawaay wa safan ak seetlu goo xam ni waxa bat ki la koy may mooy Seydina Muhammad limaana sëriñ Maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina Amadou Fall Seyer Ndiaye Biram te nga ca ngay kër te bu baax bàyyi la la nee na lii ñeen na ma baana wóor na ñëpp ni kawnul Moustapha Raïssa Seydina Muhammad mooy président boo ci gënee bañ naan la yaa ci gën ki tax nga gën mooy Seydina Muhammad deel xoolal njool màkk borom màkk ak madina ay ndëggal tànkam soo ko ku la xamba xanaa xamoo ku yor ndëggal tànk baa nga yor doon de gën a gën a kawe mooy Seydina Omar mi mu taala xurru xanaa xamoo ni képp ku gore ku la man haba bañ naan la yaa gore ki tax nga gore mooy Seydina Omar Muhammad nee na Mustafa Muhammad Mahi Muhammad Muhyi Muhammad Muzakir Muhammad Misbah Muhammad Kaha Muhammad Yaasin

kooku teg mi ne sabata sax na anna rabbana naka suñu borom lam yari di namatul indi ku mel ni Seydina Muhammad. fa biza lam yari di. nee na ku mel ni Moustapha dootul ñëw. loxo ziyaadatun. nee na bu ñu xool sangu sang yi. loxol baraa. moo ca njëkk de. yow ma alastu. démb la woon. wala daa. te ëllëg yow mal xiyaam. safaa. moo ñuy ràmm. huwa nabiyu. nee na huwa nabiyu mooy yeneen bi. wa rasulu. wa rasulu bi mu amee 40 ans ñu ne ko génnal ci penc mi. wal xalil. nee na wal xalil moom mooy xaritu bi yàlla. wa wal habibu. mooy soppe bi yàlla. mooy imaamu rusul moo ñu tegtal lislaam baraxal ba yow bil xëyri jamaal xanaa xamoo ni bu dee da ngaa rafet ba ñu naan la booga ba nga rafet ba ñu naan la bel daam ci la dàq mooy Seydina Muhammad wasaye xudulal xëyri jamaal xanaa xamoo looy mat di mat njool màkka borom màkka ak madina la gën a mat wajalli daadi faw akuluma barakatana ka baataani ndokk maaram maam si Anta borom daal sama gaan borom jërëjëf jërëjëf borom gërëm mooy sa maam dara ma jaajëf sëñ bi dina xam daal di baax kuréel gu ngeen di baax kuréel gu dootul baax bi laay bàcc kiraay nga Cheikh Jili yaay sunu mbër foog nga bëri daal sunu noon Cheikh Jili kiraay nga sant naa la sëriñ ji Mbàkke teewal yaa ngi yaa ko fi indee sant nañ la sëñ ji li yaa ngi ma ne may wax ku ko ñoo ngi ñaan si borom Tuubaa saraag ju xoloog saraag ju yar bi mu fi indi yàlla saafara si barke sëñ Aamiya sëñ ji fii bu fii ñëw xam ngeen ne kenn ñu mu fi toog waxtu yi ku fi doxaan ba 10 heures rek am ñu la raxas na lépp tey ba mu set ngir jëmmi mbaawam kon xéewal yii mu ñu indi sant sant nan la sëriñ ji Mbàkke xéewal yaa ko fi indee sant nan la sëriñ ji waaw xéewal yaa ngi yaa ko fi indee billaay sant nan ko sëriñ ji Mbàkke dana dellu si waat sant ñoom ñëpp ndax sama xol dafa sedd guy ndax sama xol dafa sedd guy sedd na sedd boo xam ne maa yàlla rek ko xam ndax xam naa nit ñi ni jàpp ci bis bi ndax xam naa gis naa nit ñi tamit yéene ci jàmm loolu xam ne ko bu baax di nuyu monsieur le maire Moustapha Mbengue di suñu xarit te ñëpp xam ko ñun bu baax a baax du ñàkk am na ñoo xam ne sax nag bàyyi nañu ngir jàpp bu ñu ko jàpp sunu xame am waaye bañ ko xamee léegi bi wax dëgg yàlla lu daal jëkkati kenn mënu ko bi li ci ëpp comme daal bi yaa ngi di dégg moo xam yaay Fall la wala Baye Fall la li ci ëpp moo ko defar bu bis bi taaroo a dégg ak suñu suñu bëgg lu baax nga xam ne ndax nit ki bëgg na na lu baax bu bu dee lu baax la la ci loolu moo waral ba ñu bëggee am yéene mu ñëw jàpp ci lépp rafet ñoo ko ciy sant moom di ko baax di sant euh, waa daayira Isbul Xadim ñoom ñoom kenn ñoom moo xam Baay Fall la wala Yaay Fall bu ñu tëddee Sëñ Modou Diop daanaka ñëpp dañ ciy duggaale ak Seydina Aliou ñoom kenn yenn lu kenn fanaalu li lépp ñoom maa ngi leen di sant baax sant boo xam ne ne ñëpp xam ne nii na ma leen ñëpp ñaanal ñu bokk ci milliardaire Serigne Touba yi. ndax xam nañ ne ñoom de bu ñu amee nit ki bu fekkee rek da xam nga ne yow su amee. sa sa am yokk war koo ñaanal muy am fu mu toll kon ñoo ngi leen di seen am am yokk bu baax a baax ñu nuyu tamit soxna Kumba Cuur bu baax moom Baye Fall sa ji rek daal di sëkk soxna Ndeye Fall Théorie soxna Ndeye Wade ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax soxna ñëpp xam nañ ko dégg nañ li mu wax léegi daa baax rek waaye loolu moom daanaka jërëjëf di wax jërëjëf ñi ngi sant bu baax a baax nag euh, sama mbokki bopp yi. ñoom si Cheikh Mbacke nga xam ne ñoo bokk benn waajur ñoom wax dëgg yàlla jàpp nañ ci def ci li ñu war a def suñu nijaay Serigne Thierno Diop moom wax dëgg yàlla li ko war ci ak ak jarbaatam wala lépp def na ko ci ñun desee duñu dara ñun ñoo ko deseel kon ñoo koy ñaanal yàlla guddal fanam ñu def ci yaakaar naa maa ngi dañu woon na ci ko daara dafañ ci delluwaat ndax li mu ñu defalul rek dafa am ba dem daara jotee yóbbu nañu daara boo suñu waajur jox ñu ko mu yóbbu ñu ci suñu mbokki taalibe yi moo xam fu daayira bàyyeekoo pour pour ñi tudde woon ba tey daayira bi euh, muy Touba Lansar euh, di soppe Maam Jaara ñoom wax dëgg yàlla seen teewaay nañ ci bi waa koñ bi wax yàlla bàyyi ñu kenn ñoom soxna Maam Jaara ñoom kenn de soxna yi Maam Fóodi yi ñoom ñëpp fi lay jël daayira association yi ñoom ñëpp jàpp nañ ci taxawaay ci bis lépp rafet na daal li yàlla diggale ci digg ci nit ak diggante ci nit ak mbokkam dëkkandoo wax dëgg yàlla lépp defar defar nañ lu ci lu ci dëgg nag nañu xam ne ci ñun la rek doomu aadama moo mate ne noonu waaye suñu yéene ëppoon na ëppoon na loolu euh, kon ñoom soxna Yacine si ñaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di bu baax a baax suñu soxna ñoom ñëpp euh, ñi nga xam ne tamit ñoo yor wàllu courant bi muy si Cheikh Diagne te suñu xam ne jaar ci Euh, suñu fàllu seen délégué de quartier moom ñu ngi koy sant baax ndax base bi bu leeree ginnaaw yàlla moom lépp moo ko def ñëw taxaw ànd ak asan yi mu kon ñoo koy sant yàlla biram leere bi leere di sant ba jàll tamit moom wax dëgg yàlla ñaari fan yi camion yi ñu ngi gaar ndox manku benn yoon kon monsieur le maire loolu dañ ciy gis nga gox bi ni mu dem waxtu wii daaw am na lu fi jàmbatoon saafaraw na courant bii ngay gis tey ci contour lañ ko doon lañ ko doon defee direct loolu sax tooñ dañoo ci jéglu tey dañ ko wàcc ci côté bi denc kon loolu yokkute la yow yàlla na sa biir leeral noonu ñu profité ci ndox tamit manqué na nga jàppale ci loolu man sa kem kàttan ndax yow li nga mën moom bu fekkoon yaa ko yokk da si signé décret bi fii ñu def ko léegi waaye li nga mën mooy mooy bind ñaan xëy na du ñu ay jànkuwut tubaab waaye xam nañ dara ci lu ci administration bi dox kon bind ak wax ak pousse ngir ngir ngir nga am ci ay résultats. loolu dong nga ci man kon boo ci ñoo ngi ñaan nga jublu ci jàppale ci waa gox bi ndax ñi teewoon nañ ko lool euh, kon la ma doon rek jigéen ñaa ngi fi nga jàppale leen bu baax ay soxna lañ ñii seen i kër xëy na nañ mag rek tamit seen i kër wériti nañ xëy na ndax maa ngi si wàllu seen xam ne xëy na mi ngi fi waaj a dugg si loolu xëy gën a jàpp bu baax a baax ndaw ñi xëy na fa seeni kàddu yi di jot am ci yoo xam ne xëy na ci yéen lay gën a gaaw ndax yéen a ko ñoom yéen a ko gën a jege loolu bu jëm ci samay ci man ngay jaar waaye bu dee jëm say mbokk ci yow laay jaar kon nag ndaw ñi ci daara ji ay tuutaas lañ ñii am nañ ay ji polon ñii am nañ bac ñii am nañ BFEM te kenn ku ci ne gis nga ne sa waa la sa waajur di jàppoon fee kon jàppale leen ngir yàlla ndax kat nit ki boo ko jàppalee nga li ko ni ko war a di nga di ko war ni ñuy nappe nga di ko may jën nga di ko may jën yaakaar naa soo ko jàngalee li ñuy nappe moo ko moo ko moo koy gën a yomb da nga ko dimbale ko kon ñoo ngi lay ñaan nga taxaw ñëpp te di ba wàcce kàddu gi di ko jox suñu seex suñu rak bu ko defee ab suñu aha Moustapha dugal na bëri bii nee na seen jiili kursi dina la may juróom fukk nee na nga na nga joxe seen carte d'identité dinaa la may juróom fukki personne nee na ñu defal leen bourse ah. sëñ bi fa ah. tuutalul mbooloo ah, yaa ngi bii rek. tuutalul mbooloo kon nag dégg ko ku sopp balam daaru salaam balaay sa ma dellu géej jamaat ya ngir la ñu xam ne Cheikh Ibra Fall jàmbaar ja Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall mooy ñag bi Cheikh Bamba ñag murid yi waaju ko ñag gi yàqu moom moom moom ruu yi Cheikh Ibra Fall moom la ma leb laat te loolu maa bëgg loolu dama bëgg ñu déglu ma bu baax man moom sama dépense bu kër maa koy wuti barki Cheikh Ibrahima Fall joxe ma wax loolu lu waaye mbëbës gii mbëbës gii laa wax laa yor nit ñi mën nañ doon jël bu leen neex bu ëllëgee seetaan tafsir gànn mi moo ma njëkk a woon ne ma bàyyi faa maanaam mu ne ma li ngeen di liggéey mbëbës ma di ko dégg lan la ma ne ko man maa fi sos daayira soxna Mariama Bousso Jaaratullaay ngir ñu liggéey fi sëñ Tuubaa ma bëgg mboolem ñi nga xam ni melokaan wu ñaaw nekk nañ ci ñoom ma waxtaan ci sëñ Jili ñu ñëw jéggalu ko te bàyyi loolu kenn li ma bëggoon mooy li ma fiy dégg jaas yëpp laa bëgg ñu yëpp ma leen ak paaka yi ba pare bu baax la jaas yi ngeen yor paaka yi ba lépp mooy yëgal li may wax. mi ngi nii ci kanam lañ ko dóor sa jublu fekk na lu fa ba ko weesu daa ma jox groupe bu ma leen tànnal. waaw ma ñëw mu teg loolu daan leen lan moo tax dee di def lii ñu ne ko ñii dañoo jàng ba toolu fenn yor seen i diiboon te amuñu liggéey léegi ginnaaw amuñu liggéey te monsieur le maire mu ne fee jaar bu fi jaaree di ñu tàllal loxo nu fas yéene taxaw fii nag di ko xaar doomu jaar. mu ne dinaa leen waxal mu sali leen wutal leen liggéey ba dootoo leen kar kenn di jàppante moom léegi nag dinaa leen may man ñaar fukki junni ngay wut ci ay xiir tàmbali ci liggéey Cheikh Ibrahima Fall ma dem ci ñoom xoolal kut moom ñu jaar ngeen ci liggéey Cheikh Ibrahima Fall bu la dee dinaa leen jëndal ay xasaay ngeen di kuréel mu ko fee bàyyi ndax amuñu temps kuréel waaye état kon nag ban lay boo toogaatee tey jii waxaat ni ñun ci suñu jëm bopp ay gone rek di fa démb ku ñëw fii yéen dafa démb lañ mos a gis balaa ay sam mu taxaw di sëtu maam si Anta yor micro taxaw di sikkat ñu di ko bàkkal gën ñu démb baax kon nag lii nga lii nga ko wax noonu lay ñaanal léegi li la wax liggéey yàlla daal yomb taa seer nag wante boppam lekk kaw suuf gi ñu ne moo ak waane ba jàll waaye pénc mi yàlla dëgg rek fay dox بسم الله الرحمن الرحيم بقي بنوع مساكين تبارك وتعالى كم يمكن di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn li ñu ko suñu borom digale di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di yaakaar jàll di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasuul di jaraw lakkal am Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne lépp lu ñu am ci Serigne Touba ñu ko may ndax bu turam mooma dafay ñaw ndax dañ ne bu la nekkee alam la ko gën a di doy waaye ñun tey bu mu mënoon a misaal suñu bopp dañ naan ñun ñu dëkk Cheikh Ibrahima Faye waaye Serigne Touba dañ ba du leen wax loolu ndax cooy def ay pexew jubboon lëpp ci jot ca aloom moo koy lekk waaye nag Cheikh Ibrahima doon cooy ndax ba mu yéeg gisoon na suñu tubaab ca azal gisoon na suñu tubaab ca azal ànd nañ ànd bu yàgg doo ko wàcc jamono mu di ko wër da nga nii suñu tubaab bëgg ñun ñu xam moom xamoon na ko ci ëllëg waaye bëgg ñun ñu xam ko moo tax mu daal ko fas yéene ñun ñu fekk mbër kon gannaaw bi ñu ko jaaroo laaxalee moom Cheikh Ibrahima Fall donc Fall ba ngeen mën a ji dañuy taxaw lu tuuti ndax ñun ci jaam jaamaati Serigne Touba yi ci lañ bokk. wallaay la asi ba keroog may sàngoo suuf

Pour suivre l'actualité en temps réel, euh, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production euh, et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale.